هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بدماها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها دار الحياة البيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لها فتراها دار الحبيب استقرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها بار حبيب قد سكن اضطراب لبيبه لما رأى ما في البقاع سواها دار الحبيب قلوبنا تهواها الله الرحمن الرحيم الحمد لله الجامع المعطي النافع ذي الفضل والكرم الواسع والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الذي بين المعالم للعوالم وهدى العوالم للمعالم wa ala aalihi wa asxaabihi wa xulafaaihi dhawi almazaaya wal makaarim wa radiya allahu an saaxibi alxatmi almuhammadi صاحب المواهب اللدنية والإلهامات العرفانية شيخنا وسندنا ورجائنا مولانا الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن جميع خلفائه وجميع المتعلقين بأدياله الكريمة وعن كافة أهل الله ridan la suxta wala salba wala tarda baada bokki jullit yi fi teew ñu ngi yëkkati nuyoo ya gën a tedd nuyoo ya gën a sell lépp lu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lam ci ay yiw ci ay leer yàlla nañu ko yàlla yéegeel ca ya sang ba sallallahu alayhi wa sama kanam gi neexu la neexu la wowal de nii laa baaxoo xoolal wala tabaarakallah waaw na euh, sell ñu yëkkati ko di ko jëme ci mbooleem ku fi teew ak mbooleem ku fi yéene woon teew te yàlla dogalul ak teewam ci jëmm waaye nit fu xolam nekk rekk ma nga fa fa tabaarakallah muy nuyoo ak ziyaara yu jógee yu jaar ci sama làmmiñ ñëw ci yéen waaye jóge ci làmmiñu suñu kilifa suñu sëriñ suñu baay Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour ngeen xam ni comme ni ma waxoon léegi ñàkk a gis jëmmam ci mbooloo mi bu amee amul sikk ni yéen ñépp nangul ngeen ko ni ngànt la dafa fekk ni aadala rekk bu ngant amee ca ña nga xamante ni bii say naw lay gor la yu leen yu yàlla boole ngeen ànd ci yàlla saa bu la ngant gaaree rekk war nga leen ko leeralal waaye moom xam na ni la mag ñu baax ñi daan wax ni al udru inda rijaalillahi maqbulu dal na leen ci wuuteeg jëmmam gi te li ñuy wax nag léegi mooy wuuteeg jëmm la bàyyam bu baax ba Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiallahu an daan na faral wax ni daan na faral di wax baytu wi naan wa ma darrana nayul jusuumi wa qaddanat quluubun tawaynaha ala xaalisil wuddi di wax ni wa laysa bi naafiin dammul ayaadi ida lam tattaxid min alquluubu nee na sori jëmm yu duñu lor fii ak jëmm yu sori yooyu yooyu xol ya mu ëmb seeni boroom a ngay tàppante paso ci xol yi mu ni tàppante paso di joxante loxo guddeeg ngoon te xol yi ànduñu nee na amul solo te yëg na ni seen kànd gi ak moom mucc yàlla musal na ko ci loolu yàlla ko yàlla saxal kon ngeen xam ni ngant ko waral baayam turandoom sayidi aboubacrin si awalu xalifatin li cheikh alxaaj malik radiallahu an anhuma dafa waxoon ni ñetti mukk ku dul yàlla muccoo ci sëñ Babacar si radiallahu anhu nee na ñetti mukk ku dul yàlla mucculoo ci mooy ku dul wuute mukk doo tële mukk doo ñàkk mukk nee na loo fekke fekkee bis di nga wuute loo bëggoon a fekke loo man-man dinga nga tëlee loo bëggoon a man loo am-am dinga ñàkk bis loo bëggoon a am ku dul yàlla nag muccoo ci yooyu kon benn ci gaar tey suñu sëriñ te ñu nangul ko te ngeen nangul ko ko te mu xam ni te mu nangul leen nangul googu ngeen ko ko nangul yéen laata mu leen koo leeral waaye fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin bi ñuy ñëw fii sago lañu ñu waxe kàddu yi ñuy indi ñàkk a mën a teew ci mbooloo mi rekk la waaye du tëddu ñàkk sago tabaarakallah kon nag mi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di teg nuyoo bi ci loxol président Ousmane Sarr ak loxol présidente suñu jigéen soxna Diastu Diop ak mbooleem ñi nga xamante ni bi ñoo ŋànk daayira bi ci góor ak ci jigéen te seeni taxawaay rafet lool waaw waaw Pape dafa wax ni sama waajur la kii kat mooy sëñ Babacar ci man fa tabaarakallah bu ma nekkoon tey ci sama wérd bu ma nee taxawal ma taxaw déglu ko ba noppi door a sofaat fa ma yemoon kon sëriñ bi la wax sëriñ Ousmane nee na dafay jéggalu mbokk yi xanaa ba ma jéggaloo ba noppi man man jot waruma waruma jéggalu nee na di yëkkati nuyoo ak ziyaara ak baalu xaq nee na yàlla dafa dogal mu ni am ay bokk yoo xam ni bis bii dañ koy taxawal ñoom nee na ren la ci fukki at ak ñaar nee na moom ak papa Anne la Serigne Maodo daan yebal ñuy teewe bis booba nee na am na ñu koy xaar ci buntu kër ga am na ñu ànd ak moom ñëw ci daje bii ñoom ñëw jël si ko pour mu ñu mu ànd ak ñoom dem Pikine waaye mu ni daal yàlla dogal soxna ji astu ak soxna awa seen ñëwaat ca kër ga ki démb ñaanaat ko yóbbante ko yóbbante it soxnaam ci moom ni ma daal sëriñ bi daal bëgg nañu lu mu metti metti rek ñu ngi lay ñaan suñu daje bale wala suñu gàmm ko nga teew ca donte ñaari minute nga fay def nee na mu nanguloo leen loolu it yàlla nattu ko nee na mu tardé lool te nee na mënula ñàkk dem it ca mbokk yooya nee na mu leen di ñaan yéen mbokk yi bu ngeen ko ko mayee nee na mu dem bu ngeen ko ko mayul it nee na mu sant yàlla ndax nee na moom li muy wax fi mu toll nee na ñun nee na seen bàyyi daf leen daan fàttali maam Ousmane de yéen xaw ma ñan waaye yéen ñi nga xam ni man maa leen jur yéen daal na ngeen xam ni du ngeen di sëriñ ay taalibe ngeen mu ne wala yàgg sax mu ne ko yéen du ngeen ni sax ay taalibe ay jaam ngeen ndax mën man Abdul Aziz ñaanoon na yàlla mu def ma jaam te soob na yàlla njaam googee yàlla nangul na ma ko te sama deret ji ci li ma ci ma ci ma leen yàlla saraxe te joomi jaam nag mënula nekk lu dul ab jaam kon nag mu ngi jëlaat moom mbuumu njaam googu yeewaat ko ci baatam teg ci seen loxo yéen ñi nee na xamul kan waaye man maam Ousmane Dabbaax fu ngeen ma xëcc jëme fu ngor nangu nag diine nangu ko mbaax nangu ko incha allah dina ci ànd ak yéen nee na ab jaam nag warul la ñëw ci biir sangam sax di wax waaye ba jaam bu am sangu yu mel ni maam Tamsir Sakho mel ni président Ousmane Sarr ak Cheikh Seck ñu indi jaam bu bon ba maam ci seen biir yemu ca ñu may ko muy wax bu mu tee nag mu xam ni jaam la nee na te yuusufa nag jaam bu xamee boppam la ko war digganteem akub sangam mooy lépp muy seet lépp loo xam ne dina bégal ay sangam mu def ca la mu mën nee moom de xamul nu muy def waaye Cheikh El Hadj Abdoulaye daan na gis nee na muy def di saa bu daan toll ci situation yu mel nii ba te bëgg bëggali sangam te xamul lu muy def daan na yëkkati kàddoom kàddu leeram yooya kàddoom yu yiw ya kàddoom yu bari njariñ ya boole ca baat bu neex ba tagg rasulullahi donte benn bayit la wala ñaar ñu def ko ñaan def ko ndokkeel jaamoo ko it sangam bégale ko ay soppeem nee na moom la mu mënoon mu mënu ko waaye buñ ma ko mayee daal ma jéem benn bayit wala ñaar def ko muy participation ci guddi gi alhamdulilahi rabbil alamin président Ousmane wuyul nee na waaw bisimilah kon ana daagoor daagoor jàppale leen ma rek baat bi neexul te soj mi dafa jàpp lool هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بدماها دار الحبيب

البيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لها فتراها سرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها والقلب قد سكن اضطراب لبيبه لما رأى ما في البقاع سواها دار الحبيب قلوبنا تهوى jàpp waaye bëgg ngeen bëgg rek kon mu néew mu bari yàlla ko yàlla def ñaan bu mu nangu yàlla lépp mu néew yàlla na ko yàlla def ñaan bu mu nangu ani xaaju daagoor taay ma jox la sama yalwaan ji nga joxal ma ko jaamu yàlla yi Pape Ousmane jërëjëf jazakumullahu anna xeyran ñu wax ni kon ñu àggale li ñu doon wax muy nuyooy sëriñ bi ñu toll woon ci tudd président daaira bi bu góor bi ak bu jigéen bi muy sëñ usmaan ak soxna Jee Astu te bi ñuy ñëw ñu def délégation boo xam ni fa tabaarakallah xàmmee ngeen ci ràññee ci mbooleem ñi nga xam ni baaxoo nañu di gunge sëriñ bi ci xew-xew yi boole ñoog suñu wayjur alxaaji Dudu Guèye docteur am sëñ ab Aboubacrine ñu gën ko xam ci Mbay Fall alxaaji Malick si Maodo alxaaji Mansour Ñang ak doomam soxna Aminta mu ngi toogoon foofu tabaarakallah mu ni yéen ñépp ngeen ànd dem ca mbooloo ma teewal ma fa jotalal ma sama ngànt fa tabaarakallahu ma ni nuyoo yooyu mu jox ima mu jox mu tàmbalee ko ci président avec présidente bi wàcc ci mbooleem kuy yëngu ci biir daayira bi ci biir groupement bi nga xam ni moo ëmb mbooleem jullit yi nga xam ni ñoo yeewoo fii ci Medina muy fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin mbooloo mu mu wax ci kanam loolu sëñ Ousmane fekkewu ko mu seedeel leen pas-pas moom te ku xam sëñ Aboubacar ab Mouhamadul Mansour xam ni du koy raayal nit gannaawam loolu bokkul ci jikkoom kon mu nangul leen seen pas-pas yu dëgër ndax pas-pas bu dëgër bi mooy wane nii mbooloo mi di yokkoo yokkub mbooloo mi dañuy wax ni maa kaana lillaahi daama wa tasal wa maa kaana li gayrillaahi inqataa wa infasal yàlla loo ni dama ko sos ngir ngir yow yàlla bëtam du ca jóg foo toll ma nga teg bëtam ca loola saa bu ko yéree yëg ca mbooloo ma ni pas-pas ba ñu tàmbalee woon ca la ñu ne ba tey yàlla nee na may barkeel mbooloo ma mu yokk di gën a dëgër nee na nag mbooloo lu mu xumb xumb ci njalbeen te yàlla lalu ko château de cartes la lu mu kawe kawe ci daanu la jëm loolu nag sëñ Babacar nee na dalul mbooloo mi kon mu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ci munaasaba bii nga xam ni ci la gàmmu gi amee ba tey mawlaana cheikh alhaj malik radiallahu anhu dafa wax ni bi idami zamani walmakaani taadumu taatun ma alisiyaani jëf joo gis jëf joo gis ca jamono ya muy am walla ca bis ba muy am la ko yàlla di yéege ca jamono jooja walla ca bis booba gàmmu mën naa ame fu nekk waaye gàmmu Ashura yemul ak gàmm ga ko jiitu bërki démb ndax Ashura yemul ak bis ba ko jiitu bërki démb ndax li ko yàlla defal kon bu leen ko yàlla tànnalee ngeen xam ko di ko jox ak xam ci yi anam ba àdduna seddeel leen ko mu ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa yàlla na leen yàlla dollee dëgëral yàlla na ko yàlla dollee sàmm yàlla nag li mu wax nee na falaa yamanu makrallahi illa al qawmul xaasiruun liggéeyu yàlla dafa doy waar saa boo yégee rek ba xaw a fëgg sa dënn rek booba tuul mu tàbbal ca lu tax mu xajam bala nga ci doon wut dootoo ko ci am yàlla nee na ku nar a perte ëllëg mooy wóolu sama pexe lu sa xel dal dal ak lu mbir yi dox dox rekk bu mu tax nga bu mu tax nga tekki sa laxasaay nanga gën a dëgër ca booba jamono fa tabaarakallah nee na bu leen nuyoo noonu du ñàkk ñu mu beddi walla ñu mu sem seppi ci biir mbooloo bi xëy yéen ñépp yéen ko bokk waaye nee na mi ngi ciy njëkk a tudd particulièrement kii nga xamante ni bii mooy Cheikh Ahmed Tidiane Seck mu koy ñaanal yàlla ndax li mu am yombul gor yu toll nii mu seedeel leen pas-pas yooyu képp koo xam ak jamono ni mu soppi ko nga xam ni at mu jot mën ngaa seet koo xamante ni bi yaakaar nga ni foofaay gën a tooy nga tudd ko sa sa bis nga jël ko pare nekk ko pour toujours nee na loolu lu rëy la waaw parrainage à vie Cheikh El Hadj Abdou Cheikh El Sëñ Babacar Sy Mansour nee na loolu lu rëy la waaye Cheikh Ahmed Tidiane daf lay wax ni fi la yàlla jaaraleel loolu ba mbokk yi jël teraanga jooju teg ci sa loxo yàlla ko yàlla saxal ci sa loxo ndax loolu Pape Mansour Mbaye wax na ko fii léegi Pape maam maam maam Tamsir wax na ko wax na ni lii du alal du leneen sa jikko la joo xamante ni bi moom nga àndeek ak ñoom kon nag jikko joojee nga xamante ni bi moom la la yàlla ràng ba sa nawlay gor yi doyloo la ci seeni mbir teg la ci kanam yàlla yàlla bu mu tàqalikoo ak yow faw yàlla bu la seytaane man benn yoon ndax seytaane nag fa tabaarakallah wutul wutul ku lu dul ku ñu nu yaa nga ca yoon wa waaw wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna aadaana al anaam wala amurannahum fala yugayyirunna xalqa allah loolu ay gëñ la yu jóge ci seytaan bi jëmewu ko ku dul nag wax ko yàlla ni ko na ma mën a def gaa ñi dinaa jëflante ak ñoom gaa ñi nga xamante ni bii ñoo laxasu jëm si ci yow maa ngi bëgg nga bàyyi ma ak ñoom ma jëflante ak ñoom ba insha allahu taala bu dul ñu néew ci ñoom dinaa leen gàllankoor ba lii ngi ñu bëgg ci yow duñ ko am kooko yàlla na nga tëj yàlla nga ko tëj sëñ Babacar nee na yàlla na nga të seytaane moom mii inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan góor gu baax daan na ko ñaan ni dunu diggante nunu tawkiit jooju ak yaa ul mutakallim jooju yàlla na ci yàlla doole dugal nee na ñaanal la ko waaye ñaanal ko say bokk yi nga xamante ni bii gannaaw yàlla yaa ngi ànd ak ñoom ñi nga war a ànd ak ñoom waaye ñoom it ñu ngi ànd ak yow ni ñu war a ànd ak yow wax nañ ko léegi fa tabarakallahu sa mag a nga nele di alxaaj Mamadou Seck papaam di alxaaj Mamadou Seck ak nag fa tabarakallahu al oustaz Abdoulaye Guèye Siis ah oustaz bu sama xarit la dem naa ba këram bari ñi seeti ko sama soppe la fa tabarakallah kon sëriñ Cheikh sëriñ bi bu la nuyoo mi ngi nuyoo yi mi ngi koy mi ngi ci dugal xëy na ci ñoo xam ni fa la waroon a tàmbalee sax mooy aimatu hadihi al xawma wala hada al mooy imaam yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci boppu quartier bi ki nga xam ni moo ñu ubbil suñu daje bi di imaam alxaaji malik mbay mu ngi nii toog fa tabaraka waaw Maodo mooy alxaaji malik alxaaji malik mbay comme ni nga xamante ni bi noonu la ko alxaaji Cissé Jinge waxee léegi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin mu suñu way jur wu baax wu taxawu diine wu donnu taxawu diine ba pare wëlbatiku di ko taxawu kon ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax sëñ baa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ziyaara it mbooleem kilifa aada yi nga xamante ni bii ñëw nañ fi meeru Medina muy Alxaaji Bamba Fall fii la toogoon dafa am xew-xew bu mel nii moo ko moo tax mu dem ca naka noonu wax nañu ni ci gouvernement bi ci ministre de l'énergie ak ki nga xamante ni bii moo nekk présidence muy Seydou gay am nañ fi ay représentant yoo xamante ni bii ñëw nañu teewal leen ci jataay muy may a Ndoye Seck mooy wasiratu taaqa muy ministre ministre de l'énergie euh, euh, délégation ñëw fi Serigne baa ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax fa tabaarakallaahu sëñ Ousmane sëñ bi wax ni mbooleem jamiyaat yi fédération yi nga xamante ni bii ñoo fi daje yépp ngeen tudd ci sama nijaay jëlee mu nekk ci benn fédération muy sëñ Mbay Jaañ di suñu ndijaay mooy Jaañ waaw ñuy tudd gën koo siiwee Mbay waaw di suñu ndijaay di sama ndijaay soxna mooy sama goro moo may soxna waaw man waa jekko la waa jekko la fa tabaarakallaahu kon ñu ci moom lañuy jaare nuyu jamiyaat yépp ni ko kilifa gi doon def ni waxe jaar fa it nuyu dawaayir yëpp teg ko ci loxol alxaaji Mamadou Guèye mi nga xamante ni bii moo nekk ci bopp daairatul ahmadiya ñu niroo ko yeen mbooleem dawaayir yi nga xamante ni bi ñoo ci nekk sëñ bi xam ni nii nga xamante ni bi noonu la daa daaira bi di doxe daa daaira la boo xam ni dafa am ñu ko ŋànk sëñ Ousmane nee yëg na ni seen taxawaay rëy na waaye mi ngi nemmeeku taxawaayu xale yi yi nga xamante ni bi ñoo leen di jàppale ci daa daaira bi ñi ngeen ci gën ràññee mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ñu tudde ko soppee dabaax yi fa tabaarakallaahu ñu tujj ci suma jur wi nekk ci seen biir muy maam Ousmane Sy di ko jaalee magam sànq ni doomu sëriñ bi waaye kooku rakku sëriñ bi la mook sëriñ bi ñoo bokk bàyyi sëriñ pap si mi génn àdduna mook sëriñ bi ñoo bokk bàyyi ndax maam Alioune si bàyyi la ci sëriñ Abou Bakarin si Mansour baayam mi nga xamante ni moom may mooy maam mbër mooy lañ tuddee maam mbër lañ ko daan wax turam di maam Mor Bint si kooku moo doon rakku Sidil Hadj Malick bi nga xam ni ba la Hadj malik di dem Makka moom la dénkoon këram yàlla dogalit mu mu jiitu Sidi Hadj Malick Sidi Hadj Malick mu bi maam mbër génnee àdduna moo ko denc ci baqi am yee ca Tiwaawan ba mu ko fa dencee nag la ni ah béréb bi de mel na ni mi ngi bëgg a yaakaaru man yaakaaroon naa ni may dem bàyyi fi mbër mu taxawul ma njaboot gi ndeke liyee soob yàlla fa tabaarakallaahu ñu ngay ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla téeroo yërmande suñu wayjur woowa yàlla yéegi ko ci barzaxu maamam yee ñu ànd yéeg ci barzaxu sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu comme ni nga wax Ousmane si ak ndey Amy Seck ni ñu ko waxee ñoo nekk ci bopp soppee dabaax yooyu di liggéey liggéey bu rëy nag fa tabaarakallaahu euh, ñooñu de ñu ma bindoon lañ te yàlla dogal na dem nañu mooy kilifa yi fi ñëwoon ci muy jàllaay ak maam Ablaye Kebe comme ni ma ko sëriñ ma euh, Samba Camara Mële di soppee Cheikh al Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour bari na loo xamante ni bii ah, lu bari lu muy doxlu loo xamante ni bii ci loxo moom la koy teg moom Samba Mële di soppeem bu baax a baax moom ma waxoon bokk yooyu kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu donte nekkuñu fi ah fa tabaarakallaahu sëriñ bi di wax rek ni. lu mel nii daal ku ko taxawal yàlla di ci dugal loxoom ba mu mel nii at mu nekk nga ni yokk na yow xam nga ni war ngaa sant yow yëg nga ni war ngaa sant nee na sark dëgg nag du alhamdulillahi rabbil alamina yem ca yàlla dani alhamd sant la waaye am na xeetu cant guñ naan a shukr moom lañuy wax i'malu ala daawuda shukran sant buñ ko dee wax jëf a tax nee na jëf gi nga xamante ni bii moom la war a daaira bi gën a gën a war a fagaru ci jëf ko ci seen biir ngir sante ko yàlla ci lii mu leen defal mooy yokk seenug déggoo mooy yokk seenug ànd mooy dëkk yokk seenug booloo yokk seenuk yëkkateendoo ak tegandoo fexe ba jukkiku ci li xew ci dëkk bi ci réew mi ci ay wax neena wax ji bari lool te wax ji li ci ëpp wax ju yàqu la waaye defarul nee na wax ji li ci ëpp wax ju yàq la waaye defarul yàlla nag dafa ni ci alquranul karim waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu ànd leen yéen ñëpp di yëkkateendoo du tegandoo waaye mu dem ba yàgg ca biir mu ni mu ni euh, waltakum minkum umma yadcuuna ila alxayr wa yaamuruuna loolu mbooloo mi nee na yéen bokk leen cay ñooña ndax nee na bu yàlla ne ànd leen di yëkkateendoo di tegandoo wax ji bari ba na leen a yàqal li ngeen di def nee na bu ngeen ko mën la tere ñépp yéen fexe leen ba jukkeeku beru fële ni ñun dey incha allahu taala fas yéene nañoo bokk ci kuréel yi nga xamante ni bi dañuy bokk ci ñiy defar te duñu yàq te duñu fekke it lu yàqu loolu nag ku ko def yaa dellusi ci at taalim al quraaniya te yàlla du wuute akub digam inna allaha la yuxlifu al miaad ko defee yàlla gën a dugal loxoom ci mbooloo mi gën ko sàmm yàlla dani laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi lmumini maa yuhibbu li nafsi dama ne yàlla dani xadis la sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax waaye sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ñu wax ci alquran ni laa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax maa ko wax kon loolu waxu yonent bi la waaye waxu yàlla la mu ni kenn ci yéen du gëm am na ci xadis boo xam danaan laa yakmulu imaanu ahadikum ngëmum kenn ci yéen du mat mukk te bëggalul boppam bëggalul moroomum jullitam li mu bëggal boppam moo tax yàlla ni yonent bi waxaat ci beneen xadis ni al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baada daldi jël ñaari baaraamam ñaari loxoom ràbbaske ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa nee na jullit mook moroomum jullitam dañoo war a mel ni ay ay ay birig yoo xamante ni bi dañ koo tegale ciment boole leen ba mu ñu ba mu dëgër këcc nga xam ni benn bu ci nekk day téye moroom ma nee na daal di jël ñaari baaraamam ràbbaske ko ni nii la àndub jullit war a mel mu mel ni bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemoon foofu dafay mel ni bunuyaan yooyu ñu wax dafay nekk ka haykalin jaamit dafay nekk lu mel ni benn stati boo xamante ni bi amul génn dund haykalun jaamidun la xayaata fii jëmm joo xamante ni bi dund amu ca mënu jariñ dara moo tax yonent bi sallallahu waxaat ci beneen ni ci ci beneen xadiis boo xamante ni bii moo fekk si boobu ñu waxoon mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mathalul muminina fi tawaddihim aw fi tawaddudihim wa taraxumihim wa taatufihim ka mathalil jasadil waxid ida shtaka minhu udwun tadaaca lahu saairul jasadi bisahari walxumma sallallahu alayhi wa sallam nee na pour wane ni loolu taxaw mel ni tabax bu bu amul benn ruuguy dund mu ni déedéet tànk du du nu yëgu sama yoon nekku ci ndax sañu ko ndax la mu yëg rek la yëg dootul nelaw bu tànk dee metti bët dootul gëmm bu biir dee metti it bët dootul gëmm bopp dootul set nee nag kànd gi bu mu wér noonu rek lay mel fi ñu koy jëlee nag dëgg-dëgg mooy lii nga xamante ni bii mooy ashura bii ñuy dund bii ñu toll nii réew diine amul benn bis boo xamante ni bii ñu ngi koy dundal di ko fàttaliku te amul ruux boo xamante ni bii dañ ko cee war a amul ay enseignement yoo xam dañ ko cee war a tiire Ashura pour njaayeen yi lekk cere rek la waaye weesu na loolu cere meew bu bare ci njaayeen ca tamxarit neex na waaye yàlla weesu na loolu ci tamxarit tamxarit gii nga xam ni mooy asura yi ci xew dafa bari am na ci yoo xamante ni bii yu neex la am na ci yoo xamante ni bii yu metti la benn bu metti bi ci dudd mooy al imam ci lañ ko reyee ca Karbala muy deretu sallallahu alayhi wa sallam jur maam Abdul Qadir Jeylaani bii nga xamante ni bii tey tariqaam mi fii tas ci réew mi ci lañ ko rey kooku tiis la waaye bari na yonent yoo xamante ni bii ci bis bii la leen yàlla jotoon yàlla nag du jot mukk koo xamante ni bii melul wala jaarul fam la jaarloo xanaa jaar fi yàlla jaarlu ku ca raw ab yonent kenn waaye yàlla jàngale ni ci bis bii la ko defe woon moo tax ba tey bu loolu xewee nitu yàlla yi ba ci suñu maam yi taajaboon yéen yi ngeen gis nii ñu di faral di ko def fii Sénégal taajaboon taajaboon cosaan la am lu wér ah ñun ñoo ci dugal aada ba man ko def nii ataajabuuna alay ataajabuuna alay mooy alayya xam nga nu ñu daan def moom xëppoo doom ba ñàng so sopp euh, dal di songu nit kooka di reetaan wala ku lay ragal mu ni at attaajabuna yi ndax da ngeen di yéemu ci man na ngeen yëg ni man awma solo waaye am na ku ma ëpp solo foofu ku mat a tiit mi ngi ci sama gannaaw mooy abdul jàmbaar mu ne abdul jabbaar abdul jabbaar ñaari malaaka la xool loolu ca kaw lay xawe ni dépp ci sa ruum ni la ndax julli nga ndax woor nga kon li maam Tamsir doon wax léegi ni inventaire ci la ñu nekk foo tollu ci sa topp yàlla lañ doon wax ci taajaboon foo tollu ci sa topp yàlla na nga xam ni loola bu fekkee ni taxawoo ca yàllaa ngi la booleeg ay malaaka yoo xam ni dara ump leen te dinañ la regle moo tax ba bu ab xarit ji bu ëllëgee ci ashura bi ñuy wax lan xasbuna allahu wa ni'mal wakiil xasbuna allahu wa niamal wakiil niamal mawla wa niamal nasir bari na ëtt boo dem ëllëg dinañ ko wax waaye bu mu yem ci làmmiñ yi yàlla na nekk yàlla na wàcc ci cër yi ñu di ko jëfe jëfee na allahu moo yàlla doy nañu wa niamal wakiil ku ku ñuy wakiilu ci yow rek yàlla gën di ku ñuy wakiilu kon koo dendale teg yàlla ci wàllu wakiilu wala ndimbal yaakaar ni bu la bàyyee nga dee dundoo wa niamal wakiil dundoo xasbuna allah loolu nag la ñuy jàng ci loolu yàlla nañ ko yàlla boole defal xasbuna allahu wa niamal wakil niamal mawla wa niamal nasir li waral yooyu yépp nag walla dérapage yooyu yépp nag li ci ëpp wut loo am rekk la wut loo am nag wërsëg la wërsëg nag ci loxol yàlla la nekk subhanahu wa taala liggéey am na ci solo waaye yàlla bari na fu mu koy jaaralee fu jiitu liggéey wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib yàlla na yàlla may ragal ko mooy buntu wërsëg bi gën a yaatu mooy ragal yàlla waaye wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ñaareelu buntu wërsëg bi gën a yaatu topp ci gannaaw ragal yàlla mooy wakkiilu ci yàlla jox yàlla sa bopp ñetteelu buntu wërsëg bi gën a yaatu mooy assalaa fi awqaatiha di julli fonk julli te di ko def ci waxtu wa waamur ahlaka bilsalaati wastabir alayha la nasaluka rizqa nahnu narzuquk walaqibatu littaqwa bi ci des moo sadaqa ba ca mujj nag mooy at tasabbub mooy sabablu am wërsëg pour am at tarku tasabbubi suu adabin ma allah wal ictimaadu alayhi kufr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te sabablu boobu bu leen ko jaawale doomu aadama néew na fu mu sonne ba dara dugg ci loxoom te du yëg ni lii li mu ciy njëkk a yëg mooy af effort personnel am la te yàlla nee na wa ma bikum min ni'matin fa min allah bëgg naa lu ngeen yëg ci xéewal rek ngeen njëkk ma cee yëg bala ngeen cee yëg leneen wala seeni effort wala keneen kon nag fa tabarakallahu ashura mi ngi noonu gàmmu gaa ngi noonu ñu ngi sant ñëpp ñu ngi yeesal cant bi président présidente dawaayir yi wuy si sëriñ Cheikh Cheikh ak ñi nga ko bokkal ñépp di dimbali daayira bi ci li leen yàlla xéewal fa tabaarakallaahu yéen it yàlla yàlla nekk ci seen wet di nekk seen ndimbal yàlla ku mu dimbali nga am la nga bëgg yàlla na yàlla dimbali boppam nee nañ jàmbaar amul yaafus amul li am mooy ku yàlla dimbali te ku yàlla dimbali nga am la nga bëgg yàlla bu ñu yàlla bàyyeeg suñu bopp te ñaan yàlla ashura bi yàlla bu mu nekk suñ mujj ashura yàlla yàlla may ñu dund ko at yu bari lool te mbooleem loo xamante ni bii ñaan la lu ñu ñaan ak lu ñu ñaanul li gën ci ñun lépp yàlla nañ ko yàlla boole defal ñu ngi nuyuwaat imaam ak mbooleem mbokk yi nga xamante ni bii ñoo fi nekk leen jotal euh, ziyaarab kilifa gi nee na maam Tamsir it nee na ma wax ni gàmmu gi neex na maam Tamsir gàmmu gi neex na maam Tamsir gàmmu gi neex yàlla bu mu yàlla bu mu nekk nag suñu mujju gàmmu maam Tamsir ñu ngi leen di ziar ba baax maam Tamsir xam nga ñun xam nga yow sama diggante ak yow dafa amaat beneen mbir ndax sa maam nga dëgg la bët ki mu tase na ak sa doom ci benn takk man leen kii ñëw nii kat sama bàyyi la ndax sa maamu ko jur. waaye maam nga nag dafa am leneen lu ca gis nga man samay nopp sama maam Asiyatu si Malick ba ko maam si Alxaj Malick di yebal muy fekk sama turandoo boroom këram yaayu maam Tamsir la ko booleeloon muy maam may mun a jon bokk na ci ñi boot sama yaay sama papa man yaayam yaayam moom yaayam yaayam man sama papa la njëkk a boot ci moom fa tabaarakallah kon nag loolu ak jaxasoo gu yàgg la yàlla na yàlla doole taxawul boppam hada billahi tawfiq wala haadi bi man ila sawaay tariq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ah waaye moom colonel waaye délégation sëriñ bi kay colonel a ngi nii ci waaye waaye nee nañ jege kiiraay la lu la jege ba ëpp rek boo wattul doo ko gis fa tabaarakallah kon nag ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mu bokk ci délégation sëriñ bi ah, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon nag ñaan gi te ma ko bàyyee ay imme yi waaw ma wax ko Pape Modou Mbaye mu joxe ñaan ñu tëje ko jataay bi insha allah ba ba déwénati waaw tabarakallah soxna aw a Seen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax boroom taxawaay la borom taxawaay la ci daayira bi waaye borom taxawaay la ci ëttu kër Cheikh Alhaji Abdou Aziz Guèye ca xadra ba ñoo fay faral di nekk toujours ak soxna ñang bi ma ñu ñuy fii sànq fa tabaarakallah sëñ Cheikh ñu ngi yeesal cant gi bu baax a baax ndax xam nga léeg-léeg nga gis ku baax koo xamante ni bii kilifa yi la koy seqal waaye ku baax koo xamante ni bii dongo yu sew yi sax ñu nga ca biir fa tabaarakallah loolu lu raar la te loolu moom ngay def ak ñëpp tabaarakallah ñu la koy reconnecté yàlla yàlla yokk sa sa sutura maam Ousmane nag nga xam ni sama baay bii nekk ci soppe da baax dañu am conférence boo xamante ni moom la ñuy def le 14 décembre incha allahu taala mi ngi koy yëgal bokk yëpp te fii lañ koy defee it aussi fii ci Medina nee na gàmmu Pire Pape Moustapha Cissé Pire mi ngi koy yëgal jullit yëpp Baye daaw Góor ñu ngi leen di ziara Baye daaw Góor suñu baay la ak Baye Mansour ak sama rakk yeeg di Cheikh Ibrahima ak ñoom Moustapha ñu ngi leen di nuyu te leen ziara ñoom it tabaarakallah kon nag imaam.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 anta thiqatuna wa rajauna faj'al husna dhannina fika ghufrana dhunubina wa sitra uyubina wa mahwa zallatina wa taysira matalibina ad-dunyawiyati wal ukhrawiyya wa tula umrina wa taybata hayatina wa shifaa amradina ar-ruhiyyati wal jismiyya wa tamama nudurina wa niyyatina wa fatha abwaab al-arzaqi lana wa sidqa mahabbatina fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa shaykhina wa rajaina mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa xubbi jamii ibadillahi li wajhika alkarimi ajmain allahuma axina wa amitna ala hada bila tabdilin wala taxyirin wala taxrif innaka waliyu dalika kullihi walqadiru alayh wa anta ala ma tashaau qadir wa bilijabati jadir nicma almawla wa nicma alnasir wa kun lana rabbi fi kulli alumuuri fa man yakun kadalika yalqa lyusra illah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin xam naa pa maam dinaa taxaw wax ni Pape Serigne Mbaye nee na Pape Serigne nee na bokk na ci li mu waxoon nee na wax ji li tax mu bëgg mu wàññeeku loo xam ci nit ba di ko wax nit ka xam na ci yow lu ëpp loola te noppi ni pat kon loolu rek war naa tax nit ki dawe loolu gàttal làmmiñam yàlla na yàlla dimbali ci loolu di santaat yàlla rek ndaxte gàmmu gi nekk na ci gàmmu yu nga xame ni dinañ ko retenir dans l'histoire dëgg la sëriñ bi ñëwu fi tey waaye ñi euh, mu yónni mët nañu ndaw lool ndaxte xam nga gàmm goo xam ne ni ça fait vingt quatre ans nga koy def saa su ne bu ñëw rek dàq gën a dàq sa moroom gàmm gii nag nekk na gàmm goo xam ne ni daal vraiment euh, mbooloo mi ñëw nañu wuyu si ñu ngi si gërëm. borom xam-xam yi ñëw nañu wuyu si ñu ngi leen si gërëm imaam yi ñëw nañu si wuyu si ñu ngi leen si gërëm te tamit defe naa ni bàyyi tafsir saaxo tamit li mu si wax dégg nañu ko euh, sëñ bi Jóob moom it lu mu ci wax dégg nañ ko ndax sooy ndaw sëriñ taxawee taxawaayu sëriñ euh, dañ si am rek mbégte jàng yi daal lu ñu mënta wax daal moo di euh, nañ ko bëggee woon yàlla def na ni am na ñu ngi koy sante yàlla euh, bu baax a baax euh, gàmmu gi nag dañ koy tuddee Cheikh Ahmed Tidiane Seck Cheikh Ahmed nekk ci membre regroupement bi di si def loo xam ne tamit ah lu ñëpp rafetlu la vraiment Euh, ñëpp rafetu nañ ko ñu toftal ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom it muy xale boo xamee ni xale bu am yar xale bu bëgg regroupement des Tidianes moom it loxoom mosula jóg ci dimbali euh, regroupement bi am na tamit Cheikh Ahmed Tidiane si doomu El Hadj Malick si Souri moom it si ñi nga xamee ni dañ ci tof dañ dañ leen teg si gannaaw Cheikh ñuy jàppale Cheikh ci mbir mi ndax nag ñoom lu ñu yelloo la moo tax ñu jox leen ko donc ñoom ñëpp daal ku ci nekk euh, def nga sa partition def nga sa participation ba tax ni jàng ji daal alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah nekk na une réussite totale loolu daal lañu ñu mënoon wax di gërëm nag ñëpp euh, télévision bii muy asfia point org ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax lii euh, yomb na yombul waaye dangeen xam ne ci ngeen bokk moo tax ngeen ñëw jàppale ñu si ànd ak ñun si euh, réussite bi nga xam ne loolu la ñu ngeen siy gërëm di gërëm seen euh, responsable monsieur Omar njaay di ko wax ni fi mu teg tànkam noonu la ndax ñun tarixe bi rek moo ñu moo neex xadar bi rek moom la ñu gëm moo tax lépp lu ñu si war a def ñun dinañ ko def ànd seeg ñoom asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.